nit ku bëggoon fu ma fekk rek may conseillé naan ma jàppal dina baax ma koy ñaanal yàlla yërëm ko suuf sedd ci kawam euh, munuma wax dama koy ñaanal rek duudu saw bu baax. ñu leen koy tamit seen confrère la waaw nekkoon Vision TV waaw Doudou Fall nag muy ku baax man ñoo nekkoon ci maire bi fi fekk man euh, rakku yaayam laay sëyal durant ñu nekk ci maire bi mu jël cër boobu incarné na ko ci maire bi ma ak nekk nekkee sax ku wax ci man dara sax surtout fa taxawee dana waxal ci kooku la xam sam papa la mu protéger ma woon ci maire bi ba ni may jógee ci maire bi bu baax la ku jox nit cër la nag ku jox nit cër la rek biñ ko dénkee bi ma doon jaay ay ballon foot ballon fut yi fa nekk yëpp maa ko jox chaque guddi mu woo foo nekk indil ma quatre ballon terrain loolu mooy sama mujjantal ak moom donc mu doon euh, élément boo xamante ni euh, lii nag dama ko dund ak moom gaynde la ci xarala déwén loolu moom kilifa bi ko wax sax xam na ko bu ñëpp bañee day nangu xëy na ñi xamul du nervi agent municipal la. waaw foofu noonu dañu bëgg mu xaw a leer. parce que ah. amoon na tuuti coow. ñii ne nervi la. te yow wax nga agent municipal la ñun xam nañu agent agent municipal la parce que Médina lañ dëkk mun nga ñu leeralal foofu tuuti. waaw foofu il faut ñu leeral ko parce que coow li dafa bari démb ci guddi samedi bi ma jógee GIE Corniche la ñëw dégg na lu ne ñu koy wax mais ñi xamul rek ñooy wax mais ku dëkk Médina xam nga ne du fal du nervi agent municipal la ñi koy wax xamuñu lu ñuy wax mais ñun ñu dëkk moom nekk moom xam nañ ne du nervi loolu moom dañ koy wax mu leer du nervi waaw. moom loo xam ko fàtte. dafa bari dafa bari man ak moom kër gii di kër maa moom saa yu njëgaan mais événement bu am mën a xew fii añee ci kër gi man ak moom dañuy bokk toog añ dañuy waxtaan saa su ne dama daan wax dinaa fexe nga waxtaan ak saa yi naa fexe nga toog bàmbal euh, joxoon na ma cër nag ci côté nawetaan bi ba ci mairie bi ñu nekkoon donc man xam naa fu mu tolloon ci man waaw. ñu ngi naan dafa bàyyi tout tànk yàggul ñu bëggoon xam ci yan anam la ñuy soxnaam yéen ñi nga xam ne yéen a wax yéen ay yaayam. waaw loolu moom ah, yëfi sunu borom la fii nit kenn yoru kenn yàlla yor ñëpp bàyyi na xale nag tout tànk amagul sax euh, trois mois waaw yor na ñaari soxna mais nag yàlla moom lu mu def rek am na lu tax kii mu bàyyi peut-être ñun suñu bopp la ñuy xalaat mais kii yàlla moo koy aar moo koy samal boppam. waaw digganteem ak Bamba Fall nee nañ tout tànk bi ma doon tudd temps yi yàggul dara sax moom la tuddee doom bi digganteem ak Bamba Fall. waaw loolu moom am na mooy comme moom euh, Bamba ni mu ko waxee ci jàkka ji waaw témoignage bi mu des moo am parce que bu ñu demee ba quartier bi yëpp diggante Tëriñ Sanca ba bi mu bokk mu doomu Lebu euh, léppam gën a Bamba Fall gën a ko léppam Bamba Fall gën a léppam soo leen wax yéen ñaar boo waxee Bamba tub yere bi dafa am tache sax mu mere la man xamoon naa fu mu toll ci moom waaw loolu moom mun naa ko seede ci moom. waaw léegi papa mu bëggoon rek nga wax ñu lu ndaw ci lan ngay ñaax ndaw ñi nga xamoo ne que ni ñoom ñooy dem manifestation bu amee ñuy sànnante di dorante amaan buñ bu ñu loruwee sénégalais ñëpp ñoom ñoo ci euh, metti le mais euh, ñu seen njaboot yi ñoo ci gën a loru bon bref loolu moom yaay booy euh, ñu ñëpp ay sénégalais ay citoyen lañ xam nga li woon di am barki démb nag peuple bi la xëy na yàlla moon na mel ne bakkanam fi la jaar mais xeex bu ne xeex nañ ko fii ci Blaise Diagne bi ñun te lii amul kon donc démb destin am la woon mënu ko woon jéggi waaw man bi may xëy gis naa ko moo woo tantam suma jabar ne ko man de ki ma séntu si Blaise Diagne bi dut fa la mu a ma ah, man ko ah, man na ko wooteel mais instant boobu xëy na mënuñ ko woon jot mais comme li ma ko waxee rek yàlla moo tudd ne dundam barki dem la woon yem mënuñ ci waaw ñun ñëpp ñoo koy dund man ak yéen ñu xam Sénégal ku ne xam na ko loolu Sénégal ku ne xam na li mu demee instant mi toll nii tàng na nag muy man muy keneen xaw ma le 30 bi ñu yóbbu procès bi lu ma wóor ne man du ma gën a dal ko moom xaw ma yàlla lu ma xam ñun ñëpp suñu bakkan yi danger yéen ñii di ma filmé yéen ñii di ma ñun ñëpp suñu bakkan ci danger parce que gis nañ barki démb ni ñu def si journaliste yu bari seen morom wala gis nañ ñu leen torturé ñu leen def kon donc ñun ñëpp suñu vie mi ci en danger yàlla rek moo xam ah xanaa di ñaan yàlla moom mi nga xamante ni moom mën seddal lii senegal mu def ci loxo doxu sedd guy jàmm dellu soit Sénégal mais fi mu toll nii moom yaay booy metti na doy na waa daal. Massaw ñoo ngi lay Massaw. mi ngi noonu daal maa ngi leen di gërëm yéen tamit seen confrère la vraiment wax dëgg yàlla lambe et lépp vraiment Nouvelle moo ko géré moom la ko Bamba dénkoon vraiment muy ànd di def reportage lu mu ba ci final Coupe d' Afrique bi ba sama koñ ma def fan zone mu ne ma lii yore yaa ko am maa lay defal direct waaw loolu moom man deg la ko defal. ñëpp di man nu mu demee nii ma kii suma doom la suma rakk waaw wax dëgg neex na yàlla vraiment man moom dinaa ko dund te moom dina ma choqué parce que dama ko jege waaw dama ko jege daal waaw. merci beaucoup. Njaañeen la bokk Njaañeen la nag Cheikh li mooy papam moo nekk maire yi euh, mais donc boy bi malgré appartenance am maire yëpp dafa bokk ci Ndakaaru alors euh, nag euh, vraiment liñu ñu gis rek. dal na xel di gërëm aussi monsieur le parce que vraiment nekkal na ko daal li mu war taxaw yëpp taxawa taxawee amul dara dara loo xam ne dese na ko Bamba Fall dañ koy gërëm sant ko ci taxawaayam ci vraiment mbir mi bi mu amee ba léegi alors euh, toogul ak yooyu moo tax daal vraiment xale bi moom yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam parce que boo gisee nit ñi ko yóbbu da nga xam ne am na yaakaar bu baax daal ci moom waaw. jërëjëf Pape. jërëjëf. ah du Fall de jabaat lu ci ñun dëkk fii nekkoon maire yéen maire yi ngeen ko xamee mais ñun am na beneen vole boo xam ne sax waxuma ko mooy ASC Déggo de la Médina moom moo doon trésorier bi alors euh, ba trois heures du matin lépp lu équipe soxla. mooy soxlam mooy problème am Doudou Fall daw na guddi daw na bëccëg pour nit ñi alors vraiment lii am sànq rek wane na ko nit ñi fi nekk xale yeeg moromam yeeg yooyu yëpp ay seyeeg yëpp wane nañ moo tax vraiment daal yàlla bu cet jiitu si bàmmeelam yàlla bu ko cet jiitu si bàmmeelam yëpp di vraiment di ci liggéey bu rafet bi ngeen di def waaw yal na leen yàlla jàppale yéen affaire jërëjëf. am na autorité de la Médina. tonton la. na ko ah? ma si teg leneen bëgguma yàq loolu. tey lay masawu fekk la waaw fekk la. suma doom la suñu jarbaat la suma xarit la xale bu jox cër nit sax man ah eh, gis naa ne il a tout partagé dans sa dañ koy ñaanal yàlla rek que vraiment yàlla bu ko cat jiitu si bàmmeelam suma kilifa wax na ba pare suba léegi ñu ngi toog mett nañ bon yàlla ak ay mbirum bu koy ñaanal yàlla foofu laa yem de. lan nga mën a fàttaliku ci moom ndax yéen a dëkk. ñëw kii sax dafa judd suñu kanam ah waaw li ma mën a gis si moom moo am jàmm ak ñun ñëpp laa gis naa ne am na jàmm bëgg yaayam toppatoo yaayam loolu lu ma gis la dama ko daa tooñ sax ne ko meew. mais Mass mi doo ko entraîné loo mu ne ma bàyyi ma guddi ko mu waaxu tuuti ma ne ko demal te ñëw looloo koy faj làq daa tooj mais yàlla ko yàlla yërëm yéex te yéex يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع